قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ديكال ما جبريل عليه السلام فقالت أمك يا محمد عش دندل ما شئت لولا صب فإنك نك يوم ميت أجي فاتنك وأحبب صبال من شئت كل صب فإنك نك يوم مفارقه أجي تقلقه عن وعمل جفل ما شئت lu la soob fa innaka naka yow majziyun ku ñuy fay nga bihi ci moom tuma qaala topp mu wax yaa muhammad sharaful mu'min tàddingal ak ak ak gëm qiyaamuhu mooy ak taxawam bi leeli ca guddi ga waaye zuhu ak teddam istignaauhu mooy ak doyloom xani naas waris nit ñi xadis bi xadis bu am solo la saad moo nettali ne ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne jibril dama dikkaloon ne ma yow muhammad dundal la neex waaye danga nga faatu bëggal ku la neex baa la neex waaye danga nga ak moom defal la neex waaye na xam ne des na la ko fay kon ab jullit dénkaan bu jëkk bi day jàpp ne lu mu yag yag yag ci aduna rek dana faatu sun borom ne innaka mayitu wa innahum mayitun kullu nafsin daaixatul maut man na ñëw nak bett ko lool mom faatu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al maut fa yaqul rabbi lawlaa akhartani ila ajalin xaribin fa saddaq wa akun min as-salihin man nako bett lool mom faatu bu ñaaral bi moy ak jul kon day gëm ne lu mu mën ti bëgg rek ci àdduna baa ku mu bëgg dana tàqali ko moom lu mën di bëgg baa ku mën di bëgg ku dul yàlla dana tàqali ak moom xanaa ak jëfam ju baax jëfam ju baax jëf ju baax ba yóbbu mu bëgg ko lool ndax moom du tàqali ko ak moom moo koy topp fu mu jëm rek bu faatoo dekkee lépp rek moo jëfam ju baax lay àndal waa lu dul loolu rek dana tàqali ak moom ak lu mu ko bëgg bëgg bëgg. bu ñetteel bi nak julit bi day gëm ne lu mu def ci aduna des na ko ko fay lolu alquran ba na ci laye yu koy tektale lol laay yu bare bari ma tajid kullu nafsin ma amilat min xayrin muhdara wa ma amilat min suin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida ak wa kullu shay'in faaluhu fi zubur wa kullu saxirin wa kabirin mustaqar yeen laye yu bare bare bare bari yo xamne day wone ne jambi limi def ci aduna lu mu néew néew néew rek moo xam lu baax la moo xam aw ay la des na ko fay ni ko jibril waxee yonante bi ma yaamal mitqaala daratin xayra yara ma yaamal mitqaala daratin charra yara kon nay seet bu baax lu muy jëf ndax des na ko ko fay moom jibril teg ci na ko muhammad na nga xam ne day bokk na ci teraanga ki gëm yàlla bu guddi jotee mu taxaw di naafile di déeyal di déeyaale ak boromam maanaam mel ne kër kër ji mu nekk nekkoon ci bëccëg ci mbirum àddunaam bu guddi jotee mu daboo ko taxaw di naafile di deeyaale ak boromam wéet di ko jaamu foofu nga xam ne moom kenn gisu ko yàlla rekk a koy gis. loolu lu yàlla bëgg la lu yàlla gërëm la boo demee ci alxuraan da nga fa fekk tatajaafaa junuubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun borom daa tagg lool ñu koy def ñi nga xam ne bu guddi jotee. daal di sori lal ya dem taxaw di jaamu yàlla ak di déeyaale ak ñoom ndax loola la ci gën a màgg mooy day jëf ju nëbb joo xam ne yàlla rek koy xam jëf ju sell lay doon loolu tax yàlla gërëm ko lool moo tax suñu borom nëbbu ga ñu nëbbu seen jëf ju baax joojee dana ñu nëbbal nag tiyaaba yu bëree bëree bari xéwal yu bëree bari yoo xam ne bu ëllëgee bu ñu dajee ak ñoom bu ñu dajee ak suñu borom la leen ko yàlla fay موي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون اكبرنا ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ولم يعلى دبو غرم لول فمو تودي نيغو ريف رك دالين تودل خيول غو بري بري غوم ورا فاي ak tiyaba ji bare bare tag len kon jibril ne yonante bi loolu mooy bu guddi jotee jullit bi bu guddi jotee mu taxaw di naafile di déyaale ak boromam loolu bokk na ci teraangaam ak darajaam ba mujj nag jibril daa wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko muhammad xamal ne day bokk na ci teraanga yi ki gëm yàlla ak darajaam mu amuk doylu baña guest gestu banyak guest ulang gestu lañ yor ci sen loxo lu ken dar ben yalla defal ko mu yor lu ko doy sëkk ba lu ken dar ba bu yor lu ko doy sëkk it yalla defal ko doy lu xol nga xamne lu ko yalla sedde da ko geureum doy lo ko bu baakha a baax la nit ñi yor mu baye len ko bañ ko gestu bañ ko bëgg lolu mom lu am solo ci abdulit motax jibril ne ko lolu bokku na ci teraangay abdulit ak jam يعني بلا نكون يام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحسن البصري دعنا وخلو أم صلى الله عليه لا لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم إذا فعلت استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك نني دوني دن دي لا سواتي واي di fonk di teral li fekk nag moom bàyyee nga leen la yor la lañ yor bëggoo ci dara waaye nee na soo tàmbalee yóotu la ñu yor rek di ci xër di leen ko laaj da nga daal di mujj woyof toll ci ñoom duñ la tegati fenn duñ bëgg sax waxtaan ak yow dañu mel ne ku la bañ rek.